amee internet suivre Guédiawaye info maa ngi ak Lamine Golo nekk coach école de lutte Balla Gaye Lamine maa ngi lay ziar. waaw asalaamaaleykum maa leen nuyu yéen waa Guédiawaye info ku si nekk sa ak sa sant di nuyu monde entier rawatina di nuyu waa Guédiawaye waaw eh, Lamine démb ñu gis eh, combat Lac de Guiers ak eh, Eumeu Sène ban lecture nga ciy def. waaw ginnaaw yàlla bi ñu sant yonent sant suñu ñaari waaju ñu ngi naan alhamdulilahi rabbil alamin di balaa may dem fenn nag faa ñaanal sunu baay ju baax ji muy per Balla Gaye maa ngi koy ñaanal saa su ne fu mu mënti nekk di ko ñaanal yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana suufu Cambérène biñ ko denc yàlla na ko foofu Seydina Limaam mi nga xam ne moom la daan tudd chaque jour yàlla na ko fa teertoo te yóbbu ko si àjjana yi kawe kawe rawatina Daawda Seck di ko ñaanal tamit suuru suufu Daaru Salaam oyof ci kaw ak bépp jullit ak bépp njabootu Seydina Mohamed te ñu nekk si biir suuf rek maa leen di ñaanal yal na yàlla yërëm te xaaral leen àjjana yu kawe kawe. Eh, amin yaa rabbi na yàlla nangu ñaan ma làmb ji eh, démb Lac de Guiers Eumeu Sène nan nga ko jàngatee. waaw làmb Lac de Guiers Eumeu démb wax dëgg yàlla man de dama part personnel aw ma benn lu may mere wala lu may rapproché Lac de ndax àdduna ñëpp dañ ñëwoon du bëre day rasu day def nii yaakaar naa ne démb obstacle am si làmb ji lépp lu fa war rek Lac de moo ko def Lac de tey jii mbëre ñaar ñoo koy def Eumeu Sène ñëpp xam nañu mbër kaamil la mbër kaamil la te li ñu naan mbër su amee tuuti doole am xel rek mën na gérer combat am Eumeu loolu la def démb ñëw gérer combat Lac de Guiers def na lu mën xeex na bëre na def na lépp mais Eumeu seen ñaar ñooy bëre tey jii Lac de mënul daw di ko wuti Eumeu seen di daw di daw di arrière ba si saaku yi su Lac de defee ñaari ak action ñett wala soogee bëgg a xeex mu jéegis muy waaj a yegg saaku yi te wóorul ndax làmb la joo xam ne démb Lac de Guiers kàmb yi bari woon na torop ci moom tey jii bis bu defoon foofu 4 trois app rek mën nañoo jox Eumeu Sène jël la ndax sénégalais moom ñëpp xam nga suñ la bëggul bëgguñu la suñ bëggee nga daanu rek daanu mais Lac de Guiers wax dëgg man kontaan naa ci moom ndax lépp lu waroon tuusa na ko dóor na ko dafa Eumeu Sène mës nga gis mbër mu ko tuusa ta taxaw fayi jiwul mais Eumeu Sène jéemul dara démb amul lenn ñu taxaw ne Eumeu Sène def na ko Lac de moo def lépp bëre na première accrochage lak fi mu ne tey démb si guddi gisee sax dama ne ko wax dëgg yàlla jàmbaar nga ndax loxoom baa ngi noonu am fracture si baaraam bi te vingt minutes yëpp da koo gérer combat bi te nit ñi xamuñu ko wax dëgg yàlla gàcce ngaalaama laa koy wax kon yow su ma la déggee yow ak yaag sénégalais yi wax moom chaque fois dafay dafa bëri ay match nul démb dafa waroon gën boppam am ndam yow doo gisee lu wax jooju ne Lac de Guiers démb match nulul Lac jii mu ngi mel ni palmarès su Modou Lo kenn mënul wax ba Lac de Guiers du si boq fu ñu jógee lu ñuy wax Modou daan na Lac de Guiers daanu ko par avertissement la ko daanee Modou kenn mënul wax ne tey jii daan na Gris Bordeaux benn yoon deuxième premier combat lu mu ko daan par avertissement Lac de ñàkk na ñaata combat yoo xam par avertissement démb yàlla sunu borom moom la dogal daanee na par avertissement nañ ko ko nangul rek làmb làmb la rek fii ñaata mbër lañ fi yëkkati seen loxo si par avertissement def na li mu war Lac de Guiers démb bëri na xeex na gis ñu ko benn yoon mu arrière man aw leen lu ma koy rapproché nit nag kenn ko wax ne ko lii ngay def par force wala lii ngay def ndax géew ba ñun xam nañ li si géew moom moo fay des li dal xelam rek lay def te démb wax dëgg yàlla wanewul lenn loo xam ne ni luñ koy reproché. kon démb suñu la déggee moom mooy démb dëggal na boppam kam ëmb moo dëggalul boppam. voilà démb Eumeu Sène moo parewul woon pour bëre mais la de pare woon na pour bëre démb ñun ay kat lañ mais démb wax dëgg yàlla ama seen moo parewul pour bëre xaw ma nag lu tax bërewul mais Eumeu ku ko xam xam ko waroo woon bëre mais taafantoo nag mooy Lac de Guiers niil niil niil niil la def pour léegi lii lii mu indi démb pour nit ñi mën a critiquer Lac de mais dama part personnel man awma lu may critiquer Lac de wax dëgg yàlla ndax def na li ko war yëpp xeex na def na lépp songu na ko def na lépp ëma seen moo jéemul mhm. kon yéen démb Lac de Guiers kon stratégie moom indi moom moom noonu ngeen ko préparé woon non Lac de Guiers démb ñëwoon na pour dafa bëggoon ñëw jàpp ëma mais mooy li ma wax bëre ñaar a koy def ëma seen nangul sax Lac de Guiers jege ko fu Lac de nii nii mu taxaw yëngalaat xàcc dégager ñaari coup Lac de Guiers puus ñëwaat nangu a bëre Lac de jàpp ko la bëggoon pour bëre seek moom. Mhm. tey leen mooy nekk tey gis-gisu maanaam Lac de Guiers ci arène ci kanam. non Lac de moom man li may wax rek man moom bégaay man benn wax laay wax man géejawaay laa am géejawaay moo ma ñor man géejawaay mbër yëpp laa yéene jàmm ak salaam te li ma defal Lac de Guiers si combat bi man aw ma problème mbër mu ci am combat soo ma woowee jox ma cër gi ma yor jox ma sama gëdd man lépp loo nekk soo ba ngoon dama ciy ne. Lac de taal naa sama oto dem naa fu nekk ak moom pour leen rek ndam ndax man géejawaay moom ma ñor li may def nag ajoowul wax ju bareek ay kirib karib naa géejawaay moom ma ñor mbër mu ciy bëre maa ngi lay ñaanal ñi fa des fi mu ne nii ku ci mel ni Balla Gaye combat meeg Bombardier na ko sunu borom may ndam guy gi yàlla na ko sunu borom may ndam si combat bi Abdou Diouf moo Gris 2 yàlla na ko yàlla may ndam ak yeneen combat Youssou Ndour fiis da Balla Gacko 2 ñoom ñëpp ku fa am combat rek tey ku yor drapeau Guédiawaye rek maa ngi lay ñaanal yàlla na suñu borom may ndam xam nga démb lépp chaque fois rek gars yi dañuy wax xam nga Balla ñëwoon na ci làmb ji dana tey bu nekkoon Balla yëfi jeex na bu yàgg nan ngay wax ci loolu non loolu waa loolu tey ji ku nekk ak sa gis-gis gis nga li si Balla nekkul ci Lac li si Lac de Guiers nekkul si Balla yàlla suñu borom mooy bind mooy sàkk mais yemalewul ku ci nekk daa am loo xam ne ni moom nga mëne ak moom mooy sa jikko moom nga xam mais li si Balla nekkul si Lac de li si Lac de Guiers nekkul si Balla loolu rek laa gisee. fu ngeen toll ci préparation yéen ak yéen ak euh, Bombardier démb gis nañ Balla état ba mu ñëwee. non mu ngi entraîné wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla moom nit moom dangay wax te yàlla tax mais wax dëgg yàlla mu ngi daj ay coono mu ngi entraîné man dew ma fu muy entraîné gisantewuñu ko c'est rare la ñuy gisee comme semaine bële passé ñëw na fekk ñu géej bi foofu ñu am quelques détails yu ñu doon waxtaanee ñun ñooñ suñu biir mais wax dëgg yàlla ku ko gis xam ne mu ngi entraîné te mu ngi liggéey li muy liggéey nag yàlla ko yàlla fay muy ndam la bëgg yàlla na ko suñu borom may ndam si kaw bombardier ndax wax dëgg yàlla nag làmb ji li may wax rek bombardier amatul lu muy gañe si làmb te Balla da di xale te dese na ko lu bari maa ngi ñaan suñu borom rek jour ba jàppaguñ dat bi xamaguñ dara yàlla na yàlla may ki gën a féete ndaw rek te avenir am nekk si làmb rek yàlla ko suñu borom may ndam. kàddu bu di sant waa géejawaay yëpp te daan géejawaay na ñëpp jàpp rek te xam ne làmb li ma doon wax rek affaire de gox la. ku ci am combat rek yéeneel sa moroom jàmm ñaanal ko ñun ñëpp ñu mbooloo ndax li ñoo fee la force ndax démb gis nga li Balla def dafa neex ñëw bàkku te mu ngi si signature am tous def li muy def yëpp yéeg si digg géew bi yëngal pare dem waxtaan ak Lac de Guiers xamal ko maa ngi ñaan tamit Balla bis bu kombaam ñëwee Lac de def noonu keneen ak keneen def noonu ndax Balla ñëw na écrire Lac de su préparation kombaa bi def na lépp maa ngi ñaan te wax ni man loolu rek laa bëgg géejaay nañ àndandoo doon benn xol yëpp juboo ñuy ñaan yàlla lépp lu sunu borom ku ci loo song rek yàlla na nga ko daan loolu rek laa doon ñaan di gërëm ñëpp di gërëm waa école de lutte Balla Gaye yëpp di gërëm kulli mbër kulli écurie bu nekk géejaay waalo Mor Fadam Papa Kan Njaga Saar ñëpp koli ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax te naan nii la li ñoo fee force nañ jàppante bëggante di songandoo di xàccandoo di dóorandoo du daanandoo waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina waa école de lutte encore une fois di sant sama xarit sama doom day Jamil Gaye sa Brésil di sant Alamda sama grand sama xarit Alaaji Dut Gaye Argentine di sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku ma limu rek damaa mu Moussa duur école de lutte Balla gay li ko tàmbalee si Balla gay 2 ba ci gone yu ndaw yi lees Elton ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tanaan école de lutte Balla Gaye yàlla na fa jàmm yàgg yàlla na fa jàmm sax si dërëje Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa